naka it tey. sant yàlla bu wér. naka gox ba. alhamdulilah alhamdulilah. <laughs> Euh, démb fan la woon. <laughs> non démb nag li ñu war dafa xaw a bari de. ah démb da ngeen doon def porte à porte. waaw waaw démb hmm. dem dem dem fële euh, fii ci wetu kër sëñ Madoune Seye. Hmm. war nañ de waaw. da doon dox yooyu yëpp. c' est que nag yow nag monsieur da da ngeen am carburant. du ko ah, Anta laay yor ñu suukar. non ñi yor nañ ñi am nañ moom ana Anta. Anta moom ñu rax ci fajar gi tey Anta mi Anta mi na ñëw na ñëw. na ñëw ñu gis ko. comme que léegi dem dafa xew. waaw da ngay jékki-jékki rek de groupe. Euh, te thème de. groupe de presse. te Anta ni ma gisee ah, nii. tey bu demee baax na de. comme yow rek. damaa topp sa mag ji laa ilaaha illallaah <laughs> saa mag ji laa toog <laughs> ah, grand parti dégg nga Sall Sall Sall nee na la tey moom jàmbaar nga tey ni ma def nii baax na jàmbaar nga monsieur le maire tey nii de maron tey moom li may bëgg maron yow tey moom tey moom monsieur le maire moom tey moom man <laughs> sama poset bi lu ci waaye man day sama capital bi dafa foorul nag ah baatare monsieur le maire lu mu naan ah, anta non non. ah. léegi ci nekk ah. <laughs> ak nu rox sama chemise bi nag boobu nga génne noonu. moo fi dee fi moo fi. dix mille francs yi mooy magum jëmm. nit ñi ci lañ yaakaar ndékki. Hmm. jënd ci essence. cas sociaux ci buntu rajo bi. <laughs> tey la lan le vingt neuf. non lii lii lii nii nii tonton liggéeyul. léegi loolu yëpp nga bëgg def ci ci meuf bi. ji fii nii boo laalee essence cinq mille équipe bi jóge ci ruus bi taxawaayu ruus laa taxawee de ne nii man na fi jóge ba ma yegg avion bi te avion bi cinq mille est-ce que dina ko yëkkati ah non non man bu duggee bu dugg bu ne ting ba bindal ma ne réservoir rek damay gaaw laal benn cinq mille wala sept mille ah, ok ba dox ba dox ba dox ma laal benn quinze mille ah ok gasoil moins mën na la yóbbu géej. voilà mën naa yegg rek. mën na yegg rek boo yeggee lépp lépp saa man xole te coolu coolu yëpp naa yegg kaas ba rek. Hmm. ba dugg faja ba mu leer ma ni dugg naa ci biir territoire u géejawaay bu dee côté bee laa jógee nag autoroute ba. na nga yegg fan rek. naa génn technopole bi ba laal Canada. man station bi naa fa taxaw ba jàkkaarloo gàll ñoom Omar. nga xam ne rek Omar Ngeew sama benn copain la. Ah, ok. foo boo boo taxawee même bu ma cangee sax. li nga mën a jéggi tali bi dox. dox waaw. appel di appel di ñu lijjanti ko. non dem suñ kër foofa croisement sam benn la. ah kon soriante wu sama kër yaay waaw. Mm-hmm. man kay gis nii nag samay problème moo gën a neex li jël. mais réew mi réew mi dafa dëgër. réew mi euh, man di nga naa te boo génnee fi anti CNG la. billaay def may dagg. da lay CNG de. daf may CNG léegi docteur. bu mais monsieur le maire ana waate ngeen. ñu ngi fa. ak <laughs> monsieur le maire. Euh, mi ngi fa monsieur le maire. mi ngi fa. Euh, borom fukki mi ngi mu Ndiaye mi ngi fa ah, mais nag gi. est-ce que xalaatoo benn affaire. ñu def ko nan. waaw ñu xëy benn rek. ni waa dem rek. est que dem ci yaay booy Ngoné dem ci mu Ndiaye Cissé jaar ci monsieur le maire. après ah. dem ñibbi quoi mu bañ a am ay protocole yooyu. est-ce que duñ def noonu. bettee leen anda anda nañ def noonu. def anda sama nayim la bëgg rek sama gox bi. ay ba ko def ko ñam la de bàyyi li ngay def. ay gox nayim ci rek lay dox. kat nayim. non man de du ma ci débat sax. nayim social. anda bàyyi jàmbur anta mi nga xam ni daa demoon wuti contrat. waaw daa wuti woon contrat ci beneen télé. gis nga ñëw di ñu di ñu fooxal toog fa une hmm. installation bi yéex mu ñëwaat. installation baadu câble yee gudd. câble non dafa yéex. dafa woon day dem rek affaire bi démarré. démarré ndeysaan. mu ñëwaat mu toog mu toog mu ñëwaat. kii Anta mi. Hmm? na la leer ne tàggu na la de. Anta. mais nag mais nag kaay wax la dem dafa xew rek. doxantu. mu ngi ku ku dul woo doo xam fu dëkk neexee. sept heures trente bi nag yàgg nañ bi nag. boo paree xoolal sa bopp ci site dagg nañ ko ba yàgg. déet waay waay nañ ko dagg nag. nee nañ ko dagg dañ daan amee tekki tàggoo. wuy ma naa ni bàyyi dëgg nag. waaw président Macky Sall daal moo fi jiin journaliste yi dañuy transmet. ñetti at ana fan fan moo daanu ba ñuy dem ca faj. te des. fenn fii amul daanu li kër gi daanuwul li. daanuwul waaye nag yokkute kay kenn dàq ko nag. ñëpp koy ñaan ñëpp yaa day waxal ca kaw. ñëpp koy ñaan fa dëgg la wax da nga ko war ragal de. <laughs> non ku nekk yokkute lay ñaan na ko fa dëgg neex yàlla loolu moo am <laughs> ñun instant bi léegi buñ doon dem yow ñun tey buñ doon dem. Hmm. maa yow xam nga yow ak yow moom ñooy. fu ñuy dem kay ñooy ñooy demandoo. yow moom bu ñu doon changé télé moom ak rajo. ñooy demandoo. maa yow moom ñooy roñu roñu dem. laay roñu roñu dikk. moom fi bàyyi dama dem taxaw si buntu fa nga nekk. léegi saa boo yeewoo jàkkaarloo. yooyu demoon doo léegi. <laughs> yow bu ñu doon dem tey yow tey fan nga xalaat yow. non duñ dañuy bàyyi ñu woo ñu est-ce que gënul. jërëjëf instant bi yaay bañ de. Ah, instant bi ñooy bañ. mercato bi tàmbali na. yow nga bokk ci meilleur jour yi. Eh, yow yow instant bi yaay Chris man maay Messi. loolu moom yàlla moom def na. loolu yàlla def na ko yow yaay Chris d'ailleurs même dëng yi. maintenant Messi Maradona maa nii taxaw. dégg sama rakk jaa ngi nii di Chris léegi. Mhm. yow Juve moo la gënal wala Manchester United. man daal ni ma la ko waxee fa nga dem rek laay des. non non maa ngi <laughs> jeex na. non mën nañ bokk championnat ma ko sama équipe moom soo bëggee. lañ leen micro yi. club bii dañ fee doyal nag yàgg nañu. football ci club 5 ans jël fa ñeenti yoon Ligue des champions doy na. dem nañ dem nañ dégg foofu dem rek. Anta Anta nii rek nga. ñëwal tribune yàkkamti. nii rek nga yàkkamti bokkul dara loolu dara senn fi ba siyeen jot. bilaay loolu la loolu la ñun rek li ñuy toog. wallaay kër gi duñ ko xam. duñ ko xam ay li ñuy préparé ma ak yow. léegi ñu génnee ñu fi. ñu wàññi suñuy heure. bu ñu xamee ne mbir mi wóolatuma ko dañuy commencé di la cos. di di di dagg heure waaw léegi tës bi dee ko arrêté. 9 mm. heures ndax temps bi il faut que oustaz Iran di wax lu bari. 7 heures bi da ngeen di déborder te. 45 lañ leen may. dégg nga 48 léegi indi leen ko 40. loolu yëpp de ñun 30 minutes sax ñoom ñëpp a yem de. Hmm, dañ koy xoolal day jékki-jékki waat waaw léegi del def trois jours jox mantu laay laal trois jours mu laal la ah, ah, ah. la de nii <laughs> di ba mu dañoo ñëpp patron de presse yi kay del ñaan yàlla rek di nekk au tombé bi su jékki-jékkee rek nga xaw a yànq tuuti ngay xaw a yànq ngay cité wala ngay kii nii ngay nga dee <laughs> jaruñu yërëm wuy ma foofu noonu. foofu. bu waa ji officialisé rek nañ daw. jeex na sinon <laughs> de gis nga ko de la manière man kay mbiliñ ma sama laal la sama kayit ne la. bye balaa nga may kii ma kii. ñëwal yow ñëwal ñëwal ñëwal. <laughs> la tribune ñëpp a yem patron de presse yëpp a yem ñëpp a yem dañuy baax baaxlu rek tribune kaa ñëw ak lu mu wax. Karim Wade attaque na Maro baajo Camara rek ay ndànk laa koy tudd. te si Badio la la la foofu la daal. xam nga. non non demaguñu. dafa lànk rek. xoolal ki ñuy recruter mooy woote ni ak a yàkkamti. jabar ji la yónni waa kii ëppalul. Ah. xam naa seen jabar mooy dox yéen. non mais xanaa balaa ñëw kii kay xanaa. bàyyi na bañ pare. waaw yàkkamti na dem gi di non. te li mu diggee yëpp la lépp la def te signé guñu. bagages yëpp la teg. kenn moo xool li ñuy woote. non. daf ne woon pour ñu wax ko nii quoi pour pour wane ni ma ak yow am nañu fi voilà très bien ah, xam naa boo demee annonce bee des. dafa bëgg ñu te bëgg ñu ñu am ni fi jëm déedéet bu ñu ko tudd 30 minutes jarul tudd bu ñu ko tudd. Mm-hmm. ko rejeté. service Aly Ngouille Ndiaye ñoo ko rejeté ci liste électorale mu dem ci tribunal bi hors classe bu Dakar. Mm-hmm. ndaw sa fa nekk di madame Diallo Ba présidente bi. xam le ne tribunal am dafa incompétent. voilà waaw. mu dem cour suprême bëgg na kawe. mais Badio Camara mi jiite tribunal boobu la Karim Wade wax ni gëmu ko. moom la weddi. gëmu ko de. Mhm. nee na boobu bu nit ñi xaar dara dara dara dara lu fa jóge parce que Badio Camara avril la retraité ba léegi Macky ko fa baax ngir mu dimbali Macky pour mu éliminer ko yenn yenn candidat mhm. ma de. kon baax. la CNK ñëw ak ñun ci. Karim Wade mi nga xam ne d'accordul ci Badio Camara. ndeysaan. procès bi mhm. suba lañ koy xaar. Ah. Mor Ngom nee na. sans candidat déclaré gu nañ monsieur le maire. sans candidat xam nga ñi jox nañu dëgg ki nag boo mhm. bëggee dégg. ci parrainage bi dëgg la loolu dëgg. Mhm. Macky nag tey nag lay dajee ak waa Benno. centre Abdou Diouf. jam ñaajo. ah ko la koy maire yeeg ministre yeeg. comme foofu la ko defee. Eh, ñoom ñëpp. Abdou ah, Diouf pour wàllum parrainage ba rek la. comme foofu la ko defee baax. vox populi ñëw ak ñun ci Karim Wade ak Badio Camara. Mhm. ba léegi ni le moom de yëkk na lu mel ni xeme magistrat bi. boo wax ne waa ji waa ji la xam nga loolu tamit Karim tam tam tamit. Karim fa nga nekk nag fa ngay nekk rek di yónnee say messages. Eh, waaw. Eh, nee na waa complice la de. loolu la wax. te gis nga nee na cour suprême bii nga gis nii. magasin la ci biir palais. ab annexe la fa. <laughs> Karim Wade bii laay nekk. léegi day wax léegi eh, réew mi quotidien ñëw ak ñun ci président Macky Sall. Mm-hmm. temps yi li muy recevoir monsieur ñun dañoo waroon jéngu sax mu recevoir. mu recevoir ñu benn waaw. doo doo doo ko rëcc de. yooyu yi nga xam ne la provoqué yëpp ay blessures. defaraat yu temps yi nii. moom lay faj. Eh, alcool am la yor. parfum yu baax. laal alcool ba ngay waaj a bandaas. jox la muraake maa ngi ca sëy waaw alcool ba mu saf saf nga dem xam lu mu ca suy mu xam lu rek wallaay takk say bagage dem ñëpp a ngi dem dégg enquête yéen kaay ñëwoon ñun ci wàllum parrainage bi mm-hmm. tey bu doon njaayum mbàccum gerte njaayum gerte dañ naan ci traite bi traite lañ ne traite lañ ne ko waaw koy waay mm-hmm. gis nga ko nii ñu nii de su mm-hmm. mu nekk nii kay mbirum business ci boppam la mujjee léegi sa ko yéen kaay ñëwoon ñun ci Karim Wade ba tey Mm-hmm. ak président wu cour suprême bi nee na waa ji wane ne tëddeewul waaye papa jee gën ah. ko ànda farawaat de njaag waaw ni ko coro maana coro saar anta mi moom xanaa conseil bi def ci liñ koy tuumaal da ko doon jël mooy ah, est-ce que est-ce que tax euh, kiiw ko dégg waaw kay waay leese ko ngo yaa ngi a li ko naqari ci international libéral mm-hmm. mooy Macky Sall mu féroce ni mm. féroce la utiliser boobu la utiliser moom waaw kenn du maam nag yii muy def di dóor partem bi suba ngoon bu dégg ba cëg te kuréel gi njaboote libéraux yi ba léegi mosu cee yee yàgg ah, dañ ko muutuwaale waaw kay waay mu ne leen nag comme que yéen d'accord ngeen APR dugg si ndokku yàlla mm-hmm. PDS génn mm-hmm. dégg nga mm-hmm. wutu Abdou Diouf ak Senghor ci parti bi direct info Ousmane parti bi tay la ko. ah déedéet non non. loolu lay bañ. ak nangu nag. nee na ko de. lu mu def nee pour stabilité wu réew mi. Ah, moo tax du am candidat. ma koy mm-hmm. de. candidat. Ousmane def na tànnam. signé na ba noppi. te nee parti socialiste dana nekk ca kanam. Mm-hmm. ca kanam. moo jiite xeex bi oui kay mhm. APR mi war a jiitu ak seen candidat ñoom socialiste yi ñoo jiitu ndeysaan déggoo ma de mhm. ñuy wax nag di ko ko tuumaal amul de mhm. nee na fi mu bàyyi woon parti bi ci xalaat idéologie ba léegi parti socialiste fa la nekk kon baax vingt quatre heures yéene kaay nañu toog jaaxle nag Macky Sall rek am mu nekk nii ah, waaw waaw ragalul APR wala Benno Bokk Yaakaar mën naa nekk nag l'instant la yéene kaay ñëwal ñun ci visite Angela Merkel bi. Mhm. fii ci Sénégal. tey jii waaw waaw njiitum Allemagne a ngi fi. Mhm. en tout diggante Berlin ak Dakar ñu ngi koy defar. journal bi nañu élection locale yi mooy sa élection nañ mhm. ko koo aj ba xam nga 23 juin la waroon a nekk. waaw 2019 Macky Sall bi nee na décret aj nañ ko bu ba 1er décembre 2019 ba tey aj nañ ko juróom benni weer. yóbbuwaat nañ ko ba waaw waaw. waaw Macky nee na nag parce que boo ko bàyyee ci juin bi. day jigéen ñii dañuy campagne. local yi di campagne. day jigéen des policiers day fekk président bés bi doo ko toog. Mm, day jigéen nga bokk ci juin nawet beeg ñàngam sàngam doo ko. day jigéen dégg Dakar Times ñëw ak ñun ci. Mm-hmm. Frank Timis. Mm-hmm. permis fisc offshore pétrole. Mm-hmm. Timis la ngoog. moom bët setagul ba léegi. déedéet mooy sàkku di pour cent au Petrosen. moom lay sàkku. suba dee ki ñu war a enregistré seen jotaay. comme. nañ waat noonu rek. jërëjëf voilà ñu ñoo kar nii lañ ko defoon ci capitaine Dieye cat xaw ñoo dugg. bàyyi loolu mu sedd mais monsieur le ñuy jël. boo waxee ñëpp xam ne wax na. waaw te ñi koy xaar wax moo bari. waaw waaw. Hmm. en day lim ci jot a wax. Euh, ci ay mbirum pétrole ay mbirum ay yu doy ah, ah, ah, boobu jotaay la ñëpp di xaar. Euh, en tout cas daal ñëw na moom. kon Sénégal de. mi ngi ci réew mi waaw waaw mi ngi fi de mi ngi fi de ñu ngi koy xaar zoom info ñëw ñun ci Mansour Faye mhm. mi nga xam ne mi ngi expliquer lan moo waral ñu jëlee Yërim Cubb ca anam mhm. expliqué na ko de dégg nga loolu l'observateur ci nguur gi nga xam ne nag mi ngi xeex xiif xiif ci même réew waaw ak ah, mhm. xiif gi ñoom nangu nañ ne xiif gi am fi de ñoom d'accord nañ ko fu mu waaw ah, waaw source a ñëw ak ci ñi nga xam ne seen xel dafa sutante malade mentaux yi nguur mu nekk nii c'est le maire malade mentaux yi ñu nekkee ci mbedd mi léegi ëpp na de hospitalisation ah nu mu cinquante cinq mille quatre mille rek bëgg a nguur gi tëj waa lii jàmm la ñuy tambaamalu ci mbedd yi te lu nekk xaj na ci mën a dof yi ci mbedd yi lu nekk xaj na ci lu liggéeyuñ de ñoom tonton bu ah gisoo source a ah. nee na Macky ay ministre PCA ñëpp fi mu nekk nii. da nga ca parrainage ba. signature. génn nañ bureau yàgg na. dalatuñu liggéey. nday sekk la ñuy nday sekk signature. Eh? <laughs> kon ñu ngi ci mission bi temps yi. ci wàcc dem ci terrain bi. kon baax na tës bi. tës bi kay. tey moom sa waay. en tout cas bu démb bi doy na waar. sàccum bu nekk. en tout bu tey bi day nee nañ de nee nañ gone gi de. moo boole baayam de police. loolu baay bi day jaay yàmba. gune ñaata na am. yor jabar ak i doomam nga naan ma. boole baay bi. waaw boole baay boole ca boole ca doomu ndeyam yi kër ga daal instant bi instant bi jax moom est-ce ngeen teew ñu ko ci koppar yaa ji. en tout cas tëj nañ baayam de. tëj nañ baay yàgg ba léegi atteeguñ ko. <laughs> boobu kër. waaw <laughs> waaye sërëm yi ñëw kalaame ko tam nangu nañ ne seen bàyyi day jaay yàmbaade ah ñoom de d'accord nañ waaye tamit na kon nag pënd ba wëri na si <laughs> naa pënd ba na ñoom d'accord nañ day jaay yàmba seen jaay yàmba mais kër gi leen grand bi moom boole na seen bàyyi tëj nañ ko ndax yàmbaa ji mi ngi leen di tuumaa ñoom it ne dañuy kii yaay yàmba daal kër gi daal nee nañu daal yàmba kër gaa nga sama waaw kër ga këy nga sama kër gaa nga sama doomu ndey Usain Bolt daal la boole si waa kër noonu te di ko xeeb. baax na réew maa ngi fi lu nekkaa ngi fi yàlla baax na <laughs> dig daje ko. musique xaw ma duñ déglu musique xam naa ne reggae baa nga mel. kër ga boo fay dugg reggae baa lay dàq xam naa. <laughs> dig dig daje ko ëllëg. boo ko feet bu soobee. waaw man ci kanam di kàjju